ñu amoon naqar ci SN HLM ak mbetteel parce que dañ fa jënd ay parcelles yoo xamante ni ëpp na fukki at ak juróom am na sax ñoo ñi ci bëri ñu ngi ci ñaar fukki at 2002 ba léegi xam nga loolu yàgg na waaw ñu jënd ko fay ko ba mu mat SN deful lenn lu dul seen de d'agence bi nga xamante ni fi moo fi newoon ñu ni chef d'agence boobu moo lekk xaas bi bi ñu demee agence ba fekk fa ku ko remplacer ku tudd Matar Ba mun mënuñu seex Thiam lekk na xaalis bi mais foog da di fayaat fayaatul doo leen jot seen parcelle ñu ni nañ dem ci kilifa euh, Matar Ba muy l'ancien directeur général SNHLM muy Mamadou Kassé ñu dem jàpp ne bu ñu demee Mamadou Kassé dinañu dimbale yërëm ñu Mamadou kase daan ni effectivement directeur régional bi nga xam ne dañu ko teewoon kees muy Cheikh Thiam pour mu orienter clients yi moo lekk xaalis bi mais da ngeen di fayat parcelles yi képp ku fayaatul doo jot sa parcel ñu ci bëri daal di ñëw fayaat fayaat encore ay parcelles te mënuñoo jot ci parcelles yi fi mu toll nii boo dee xool mbooloo mi nekk fi yoon benn parcelle bi ku ci fay nga ko benn yoon Euh, kase ñu jëlee ko fa indi fa Mamadou Diagne si Mbeng ñu dem ci Mamadou Diagne si Mbeng expliqué ko wan ko suñu document ak lépp mu ni effectivement SNHLM ci boppam moo leen tooñ mais dinaa leen régler problème en 2020 Mamadou Diagne si Mbeng wax ñu loolu mun dinaa régler lépp ba yéen ñëpp dinaa leen jox seen numéro ngeen jox seen parcelle bi mu ñu waxee la 2020 ba 2022 lim li mu ñu waxoon ñun gisuñu ci dara li ñu gën a metti directeur général yi ñu ko teg ak chef d'agence yi moo tax ñu metti moo tax mu metti ñu ngi woo président Macky Sall mu ñëw dimbali ñu wax ci lii parce que lii jàpp naa ni njiitum réew mu ko yëg ci sab askan war ngaa ñëw wax ci ñoo xam dañ leen di nax ay ati at di leen nax rek. sa kër jafe na kenn ku ci nekk tamit xam na ni euh, luyaas seer na waaw kon nag nañu dimbali jox ñu suñu parcelle.